mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax amaat mbégte teewaat fii ci 30 minutes chrono ci solution info TV di nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte teewaat fi di ñaanal ñëpp jàmm at mi di 2023 euh, yàlla bu nu dundaat at mu mel ni moom ci réew mi te ngeen ci dikk ci kanam mu doonoon at moo xam ne at mu doy waar la mu doy waar di nuy El Hadji du Diouf di nuyu uh, ab lay di nuyu ma jigéen uh, Sanjogu Sonybu Assane Mbesere waa solution yëpp suka béti ñu ngi koy nuyu bu baax ay ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey nag ñu fa yéene ñëw ànd ak yenn ak at mii du jeex di ñaan atum 2024 doon at moo xam ne mu neex nag lay doon at moo xam ne day tax ñu ne 2024 yéex naa ñëw 2024 yéex naa ñëw ndaxte liñ dund ci atum 2023 yàlla buñ ko dundaat ci réew mi dinaa dikk ci Sonko ak Macky ak péripéties yi fi am ak événement yi gën a marqué année bi ak fi ñu jëm ba tey ji at mi na mu tàmbalee noonu la fa yéene jeexee at moo xam ne dund nañ ci ay junni junni ndaw des ci géej gi ba tey ji kenn dëjalu leen ba tey ji kenn dëjalu leen ba tey ji kenn masawu leen waaw ñu seetaan leen rek leen laan xale yi ku leen juróon yërëm leen du deuil national du dara loolu lu nu marqué ci at mi la at mi mooy at moo xam ne junni junni ndaw ñu ngi ci kaso bi ñu téye leen fa pour ay raisons manifestation lu ne ñu jiñ leen ko lu ne ñu chargé leen ko ci mbiri as Ousmane Sonko ak Adji Sarr at mii mooy at moo xam ne lii faatu ci ay ndaw ci ay manifestation bari na maanaam at mi li ci liñ ci ñàkk ci ay bakkan dafa bari 2023 at mu bari dee ñu bari nag dañ naan ndogal bu ñëwee sunu borom la waaye loxoy boroom jugu ca ku ne am ci wàll ku ne am ci responsabilité te loolu lépp li koy indi mooy benn projet bu taxaw benn projet bu taxaw projet bi mooy dinaa dem ñii ne ko doo dem lu tax ñu ni ko doo dem lu tax mu ne moom dina dem ci diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall mbir mi nag tàmbali woon ci mars deux mille vingt et ci mbiri Adji Sarr biñ jàppee ni rëggal na ñu dem ba jamono mars deux mille vingt trois ñu yëngalaat mbir mi yëkkati ko ñu dund fii mois de juin bu tar. mois de juin boo xam ne mooy mois de juin yi gën a metti ci réew mi dund nañ fii 23 juin ak wàdd waaye premier juin 2 juin ba 3 juin loolu kenn du ko fàtte ci réew mi li fi yàqu ci réew mi ci alalu jàmbur li fi dee ci réew mi liñ fi jàpp ay ndaw ci kaso bi bari loolu te ba tey jii du benn enquête bu ñu def ni ñii lañu rey réew mi nag moom ay waaba jiiba am ay naafeq ñoo xam ne man bokk na ci li ma gën a met ci at mi da ngay dégg ñu ni la yàq nañ université bi kenn waru ko yàq kenn waru yàq université nga dégg ku ni la yàq nañu BRT bi yàq nañu station yi sàcc nañu alalu jàmbur am ku ni la ab biisu tata taal nañ ko ba léegi enquête bi waxaguñu nu mu demee moo tax boobu du ci sori am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñan ñoo leen faat ak kan moo ko def ñun xamuñu mais jamono jooju ñooñ di naqarlu loolu dañuy fàtte ni ay xale yu bari dee nañ ci réew mi ci ay manifestation kan moo leen rey nan la leen rey ak ci yenn anam la leen rey ay vidéo feeñoon fi wane ay nit sol nit mu wane nit mu sol numéro 9 yor fetal di tiire ba tey jii mënuñu wax waa jooju mooy kan au ñu mettit lu xale yi dee di ay doomu jàmbur ku sa doom deewoon wala sa mbokk di nga jug wax ci non non mais da ngay toog di calculer ay benn matériel bu yàqu benn li bu yàqu kenn waru yàq dara mais ñi dee rek. ñi dee bu mënoon jot ci li yàq ci atum 2023 bi jël xale yi ñu xañ seen liberté te kuñ ci woo ci kanamu yoon na la relax pur et simple bàyyi la nga dem pourtant bul la wooyee ba nga ñëw da lay chargé ni ab terroriste di la chargé ni ab bandi di la chargé ci koo xam ne dafa mën a tukkil àddina tey jamono jooj ñi jàppee xale yi mais njam noonu ñu def ba jàpp xale yi di wër ci Facebook yeeg TikTok yeek YouTube yeeg rajo yeeg di xool ku wax lii ku wax lee mais duñ dem lijjanti ñan ñoo rey nit ñi maanaam duñ dem lijjanti ñan ñoo rey nit ñi bakkan dafa foor bakkan du ay caaxaan ba tey jii sénégalais yëpp mel ne da ngay da ngay gis ñi fàtte fàttalu da ngay gis sax ñi def émission ci rajo yeeg télé yi dañuy invité nit sax duñ ko ci wax. naan ñi doon yàq fii ñi doon yàq fii loolu wax ci ñi ñi ñu rey 2023 bi ñi dee danoo bari ah waxuma la li géej gi wan na ak xale yi exilé génn réew mi gédd réew mi mais ñin rey ci ay manifestation ku leen rey ak ci yenn anam la leen rey ak kan moo joxe ordre ñu rey leen na nga ko leeral. dañuy dégg ñu ay Ndella Madior <laughs> Ndella Madior homicide involontaire léegi ñi def homicide volontaire nag. loolu xew na ci réew mi léegi li ko indi nag li ko indi mooy benn projet ñu ne Sonko dafa violé Sonko dafa violé dafa ak menacé de mort ñu dem ba ci kanamu procureur procureur laaj li mu laaj juge bi ne mais corruption de la jeunesse deux mois maanaam deux ans lañ koy dóor mais li ñu doon wax ci wàllu viol beeg yi amul quoi mais loolu bu ñu ko xasee ba wax ñu gis ni peine boobu ak amande bi ñu teg ci kawam mën na xañ Ousmane ko mu bokk ci élection présidentielle xale yu jug réew mi mel ni mu mel mais jamono bi ñu demee ba xam ne Ousmane Sonko violé wul Adji Sarr menacé wu ko du ko mor mais mënuñu koon bàyyi mu dem mais loolu bu ñu ko defoon day yomb te seen projet day yàqu ñu dugal ci benn contimence boo xam ne contimence bi xam nañ fu mu ne contumace bi ñoom xam nañ fu mu ne Ousmane jóge na Ziguinchor nee na day def caravane jàpp nañ ko. Anita TV génnee yulli sutura Ousmane Sonko yëpp Anita TV génne ko li naan la règne de l'impunité man mi bu ma ko génnewoon ñu jàpp ma Anita seen ko génnee dara xewul loolu dama ne réew mi kun fi jàpp da la yëpp <laughs> waa boor bee lu ñu def garaawul ñoom ñoom lu ñu def garaawul yàlla jogal Ousmane ñëw ñu àtte ko tekkuluñ ko teg barricade ko cinquante cinq jours tëj ko ci këram te nee na ñoom ñi ko tëj ci këram ñoo ne ñoom moom lay wër moom moom Ousmane Sonko lay wër ñu bàyyi ba tamxarit ba ca su ñu bàyyi ba après cinquante cinq jours ñu didi barricade tam xarit ba ca suba sa ñu jël ko na ko ràpp ci kaso bi gars yi Ousmane Sonko tey nalaw nalaw jàpp ne ñoom ay contumace bu levee Ousmane bu duggee te pourtant Ousmane avertir na leen nee na leen première bu dee ne Macky Sall jàpp na ma ba ma defee ñaari fan ñetti rek Macky la waaye bu dee justice moo ma jàpp daf may bàyyi parce que conti Macky day daanu maa ngi fàttaliku jamono boobu kii di euh, Juan Branco dañ ko woo mu ne noo gañe nañu conti Macky daanu nga xool jour bi ñu jàppee Ousmane Sonko mbiri na tekk nag ne gars yi da leen tëral pièce ñu daanu ji procureur xëy dóor conférence de presse appel à l'insurrection entreprise terroriste li kërëb kërëb génneel ko defal ko victime di net quoi li usmaan Ousmane ko waxoon yëpp ñu dagg teg gaane nag mbir mi mi ngi col mais noonu bu la jekku mais dalay bokk du la bàyyi ba tey Ousmane ci kaso bi soobu na ci grève de la faim Ismaïla Madior xëy ni da ndekki na quoi grève de la fin boobu lottal ko ba mu mujj principal principal nit ñi naan Ousmane mi ngi dee Ousmane mi ngi dund ñu xëy yóbbu ko Cap Manuel ba tey jii mi ngi fa loolu lépp nag xew ci atum 2023 bi ci mbiru Ousmane Sonko damay résumer rek damay tënk parce que boo naree def jeunesse bi yëpp te li wala fi dana wax ni lu ñëpp xam loo ci wax mu doy léegi nag boo xoolee ci titre bi dama ne 2023 année Macky ak Sonko qui gañ qui perd nguur gi nag bi ñuy jàpp Ousmane Sonko yi na tekki mbir yi leen ñu dem ba tey jii mbiri na tekki ñu demoon ba xool nag ñoom am nañu ndam ci Sonko boo xoolee ay Ismaïla Madior Fall ay Cheikh Yérim sekk ay ñoom euh, waajoo nekk Jeune Afrique ay ñoom Robert Bourdieu Sonko du bokk la la doon wax Sonko non du bokk parce que liñ teg ci kawam. Ismaïla Madior ñoo génne fi ay loi yu bees ci contimence na contimence bu dee nii ci liñ lay toppee la la jàppee ci la contumace bi di daanu alors que loi bi ñoom professeur Ndiak Fall ñoom Ngouda Mboup ak ak juriste yi nekk ci réew mi yëpp waxoonoo benn wax mais comme Ismaïla daf na moom day politique waxam ñu jàppee koy politique ñu ne contumace bi daanu na Ismaïla na daanuwul. léegi nag li jaaxal nguur gi ci 2023 te nguur gi am ci defet mooy nguur gi danoo jàppoon ni ñoom rangé nañu Ousmane Sonko jël nañu justice bi def seen poste mais aussi jël nañu administration bi def seen poste léegi Ousmane Sonko dan ko réduire au néant mais Ousmane Sonko nekk fi bu nu xëyee di kàbbar ci moom di sëlmal ci moom di wax ci moom mais le problème mooy ñëpp ci Ousmane sonk lañuy wax ala ko nguur gi dafa jàpp nii ni mu ko jàppee nit ñi noppi rek boo déggee sax waa nguur gi lañ doon wax ginnaaw garsa garsa léegi massa massa ñoom ci lañ toll quoi nga dégg ma jambal jaañ ay ñoom Cheikh Yérim Seck naan Sonko bi mu duggee ci réew mi ba léegi réew mi dafa am jàmm dara yëngootul alors que danoo xamul ni wolof day faral di wax naan jasit gëmm na waaye xel maa ngay gis Ousmane sonk jasit la bu gëmmee nalawul xel maa ngay gis naka de la Cheikh Yérim doon wax dëgg la Cheikh Yérim la ngeen saa mu wax dëgg mooy Sonko ci kaso bi baax na ci moom ndax kaso day tax ngay xalaat ndax da ngay wér di réfléchir naka de Ousmane Sonko mais ci kaso bi la gën a graawe mais Pastef ex-Pastef moo gën a garaaw Pastef graawul mais ex-Pastef moo gën a parce que da leen permettre mais ñu jàng seen erreur munoo wax Pastef deful erreur stratégie munoo ko wax. parce que aussi booy xeex ak nguur da ngay am stratégie mais Pastef mooy parti boo xam ne bi ñuy xeex ak nguur gi lépp lu bëgg a def nguur gi da ko koy wax ba pare nguur yor armée yor juge yor police yor justice yor administration yor lépp yow ngay jàkkaarloo nguur walla ngay jàkkaarloo ku yor nguur di ko wax nii laa lay def loolu stratégie boobu baaxul woon moo tax nguur gi waajal boppam li ko dal mars 2021 mu bañ mu dalaat ko moo tax nguur gi jekku leen jekku bi fi mu njëkkee mooy. dafa am lii tubaab naan les têtes de pont mooy bépp leaderu Pastef bu nekkoon ci réew mi nguur gi dalaa jàpp mi maire di député képp ku amoon influence ci Pastef koo xam ne mën nga wax rek ñu déglu la dalaa jàpp avant ñi jàpp Ousmane Sonko loolu mais loolu stratégie la boo xam ne nguur gi da ko tegoon mu doon une stratégie payante boo xam ne nag nguur gi da kaa réussir parce que li leen dal mars 2021 la ñuy bañ mu dal leen parce que nag Pastef benn jamono dafa me ne danoo fàtte woon ni état la ñuy jàkkaar mais li naan état Pastef jekku na état bi jekku waaye nag nakate état bi bi mu tasee Pastef tëj Ousmane Sonko tëj boy yi tëj leader yi mais ci la Pastef gën a garaaw lu tax ma ni ci la gën a garaaw mooy da leen permettre mooy combat bi ci wàllu politique xeex nan ba mu jural leen lu mu leen jural mais dafa am benn combat boo xam ne Pastef dañ ko mës a mooy combat bi ci wàllu yoon mooy justice alors ko nguur gi jàppoon na ni Pastef ci wàllu yoon du am dara ci la ñu gis ñu dem ca Ziguinchor ca juge Sabassy Faye mi ngi nekk bu ma juumul le 12 octobre 2023 12 octobre 2023 lan dem Sabassy jox leen dëgg loolu nag mu doon ak coup bu dal ci nguur gi parce que xaaruñu woon ñi foofu nag avocat Ousmane Sonko ñoo jàmbaare. ñoom ñoo def une stratégie boo xam ne bu dox parce que dem gi ñu dem Ziguinchor loolu dafa jaaxal nguur gi moo tax ñu ngemb agent judiciaire de l'État moo xam ne mbiri xaalis ak intérêt état bi la war a defaan ci wàllu finance moom mu dem dugg ci mbiri politique ñu dem Ziguinchor ñu duma leen bam ñoom ma jambal di wax naan ay conflit d'intérêt ay affaire famille mais loolu taxawul woon ñu dem cour suprême cour suprême mënul àtte loolu mu yóbbu ko tribunal bu Dakar le 12 décembre ñu jox ko Ousmane Racine Thion mu jox Ousmane Sonko dëgg ñu ne mbir mi col na ci diggante bi nguur gi ak DGE ànd nañu ne du ñu jox Ousmane Sonko kayit gii firndeel ni mi ngi ci liste électorale parce que ñoom ñoo ko ci génne woon waaye juge bi ne leen dugal leen ko ci ndaxte contimence bi ngeen di wax daanu na bu yàgg daanu na bu yàgg léegi nag ci lu ñu ñëw tribunal bu Dakar ñu joxaal leen dëgg mu doon 2-0 nguur gi nag nekk dans une casse-tête parce que loolu problème la ci wàllu yoon nguur gi dem ba amatul confiance léegi ñu ne xeex bi comme candidature Ousmane Sonko kase la léegi nan fexe ba ay dossier am du mat mais nan fexe ba mu forkloo mais loolu tax boo dégloo ñoom ma jambal ak ñiy waxal nguur gi ak ñoom maître El Hadj Diouf dana léegi waxatul ñoom waxu yoon de waxatul ni justice léegi loolu lay wax mooy day forkloo parce que moment bi ñuy dépôt da ngay xool même agent judiciaire de l' état appel yi muy def ci cour suprême da koy yéexal pour que Ousmane bañ a bokk. naka de avocat yi Ousmane yi ay màggatu koj kororoj lañ Ousmane toog Cap Manuel di coacher gars yi mais li ci garaaw looloo yéeme mooy bi Ousmane dugalee jomaay ci parrainage yi ñu ne non Ousmane bokkatul léegi jomaay la nguur gi jox lépp jomaay jox nañ ko kitisam ca CDC jox nañ ko ay parrainage mu uti léegi dossier Diomaye mat na ñu ne kon Ousmane xanaa nag bokkatul léegi Diomaye mooy dem mais li neex mooy usmaan Ousmane ko bukkib timis la boo ko dàqee ba foog ni nelaw na day ñëwaat Ousmane ñëwaat déposer candidature am jamono bi muy yónni ay huissier de justice ñuy dem di constater. xamuñu ni ay jurisprudence mi ngi ci réew mi 98 jurisprudence 2017 euh, ci ni nit ki bu dee ni day dem élection ay këyitam màgge manqué waaye këyit yooyu la tax mu manqué ko jugewul ci moom waaye nguur gi moo ko teg mais conseil constitutionnel bu ko buñ ko constaté ci UC conseil constitutionnel da kaa war a nangu comme ni mu ko defee en 98 ci benn liste parallèle bu parti socialiste danoo dem. ci direction des élections pour bokk ñu leen doo leen bokk ñu dem conseil constitutionnel dugal constat wu ICE bi ñu nangul leen ko te justice mënul dëggal fi weddi fii boppam léegi nag loolu mooy aali kalaj gi ci mbiri son ko mooy jamono yi fan lañ koy jaar te conseil constitutionnel pour l'histoire pour la daloon Côte d'Ivoire du leen dal pour la xewoon atum 2012 du leen dalaat mais conseil constitutionnel bi gis nañ fi ñu dem si yàlla seen si Cheikh Tidiane Diakhaté yàlla na ko suñu borom jéggal Yaoundé gis nañ ko les conséquences face à l'histoire devant un président parce que pour la première fois conseil constitutionnel di statuer ci dossier boo xam ne président bi leen fa teg moom nekkatul candidat est-ce que ñoom am na ñu intérêt ñoom waa conseil constitutionnel di jàppale président boo xam day dem ñoom nag ñu des ak mi war a dem ngénte war a dem cër war a naani ataaye war a jëflante ak nit ñi est-ce que Macky Sall jaral na leen loolu. loolu tax mu doon un problème loolu tax bi gars yi Sonko yi demee déposer seen candidature jël constat wu IC teg seen xaw léegi ñu ne dossier wu Sonko yëpp mat na juriste yu bëri jug ñu ne la candidature elle est recevable parce que li tax jotul quittance am ci caisse de dépôt consignation ak attestation lu tax jotul listam ci feuille parrainage yi. loolu du ci Sonko waaye nguur gi moo ko def administration bi te alors que administration bi seen yoon nekkul ci élection parce que conseil constitutionnel mooy le juge des élections léegi nag wuréwe na ñu war a xool wuréwe na këng ñu war a xool fan la ñu jëm parce que mbir mi doona lu yomb ci nguur gi parce que ñoom jamono bi ay Ismaïla Madior di génn gars yi di génn Ousmane du bokk du bokk dóor communication dóor mais communication boobu jàllul ba tey ji Ousmane bi fi ne alors que nguur gi ñoom dañoo jàppoon ni heure bi Ousmane Sonko nekk ko fii heure bi Ousmane Sonko xàddi na heure bi Ousmane ko dem na di dil wala muy négocier wala muy dialogue comme Barthélemy Diaz ni mu ko waxee mais waa ji toog fa mu toog rek chaque jour mu roof benn galgal <laughs> xolo bi xolo bi bi lañ ma dugal la 30 le 30 le 30 neen dañ koy investir fi mu ne nii kenn nalawatul fi mu ne nii nekkatul ci dara ci diggante bi dégg nga ay xaalis bi jóge Dubaay ñoom Cheikh Yérim Madiambal maanaam stratégie yi teg yëpp di échec mu mel ne ñoom seen i pexe yàlla moo ci àndul ay xaalis bu jugee Qatar milliards yi nii kërëb kërëb dem jox ab député boo xam ne dafa kay ni muy wax ay wax wax yu xam ne xamu ci tous maanaam ñoom dañuy tëgg scénario comme bu Adji Sarr mais ñi joué scénario bi ak ñi koy bind xamuñu dara xaalisu Qatar bi dal fële far musaa Diop ñëw dóor leen mbiri jamaa ñu jël mbir mi teg muy beneen ndam bu mu amati ci ñoom loolu mu doon ay erreur yoo xam ne nguur gi da ko def te loolu nag li ko indi mooy ñàkk sago ci xeex ak Ousmane Sonko te objectif bi ñu am mooy Ousmane Sonko du bokk ci élection yi ba tey ñi ngi ci mais Ousmane Sonko ba tey ji mi ngi ci léegi kii bokk ku dul bokk suñu borom moo ko xam mais gëmuñu ni woon ñoom moment bi ba tey Ousmane day exister Ousmane day exister loolu mooy seen problème léegi nag ñu ngi toll ci conseil constitutionnel. dina bokk ak du bokk li ci kanam raw li gët léegi nag loolu lépp bu ci tolloo Ousmane dugal leen Jomaay dugal leen Cheikh Tidiane Dièye ñu Habib Sy ci biir maanaam fi mu ne ñoom xamuñu kan la yitee Ousmane lan waxoon yitee mais léegi ñeenti Ousmane moo am <laughs> ñeenti Ousmane moo am wala fukki Ousmane kenn xamul parce que nee nañ quatre-vingt-quinze wala quatre-vingt-treize candidats ñoo déposé seen i lii ca conseil constitutionnel. ñoo déposé seen i parrainage ak seeni i caution ak seen i dossier léegi ñooñu kan moo ci Ousmane ak kan moo ci dul Ousmane loolu mooy problème mu gaay yi Ousmane Sonko ma nga ca kaso waaye mi ngi ci biti maanaam Ousmane mi ngi ci kaso bi waaye mi ngi ci biti di jouer ah el tactico loolu mooy problème mu gars yi xamoo kan la xamoo Jomaay la xamoo Cheikh Tidiane Dièye la xamoo Habib Sy xamoo ba Niang la xamoo xam mën naa am sax ci quatre-vingt-quinze yi sax Ousmane a nga fa koo xam ne kenn foogu ko koo xam ne bu demee ba mbir mi lëj koo koy dem élection te booy nee nan moom lañuy déglu moom la ñuy xool moom lañuy topp la Youssou Ndour doon wax ni muy waxee lañuy waxee li muy doxee lañuy doxe waaye tamit li mu li mu bëgg lan bëgg c'est te yooyu ay stratégie la yoo xam ne benn jamono nguur gi jekku na mais Ousmane dafa ñëwaat heure boo ko nëppee ba foog ni dee na benn jamono dangay ngay sentir passif la moral da nga ko sappe ah dara yëngatul woon mais waa ji à chaque fois am na moyen pour yëngal affaire yi xool la 30 bii ñu dugal mbir la di Macky war a wax le 31 mu ne la 30 concert casserole la doon def tey jii nee na le 30 na ne ACAPES dañ koy investir waaw candidat la te conseil constitutionnel nangu na dossier am fu Bougane Gueye Dany mën a dem daje fee ca plateau de l'Obélisque ah kii di Sall nu mu tuddoon waaye kii Amadou Ba damay fàtt turam sax <laughs> Amadou Amadou Ba war na sangoo bayre de xala xala Amadou Ba mën a tëju ci nekk di investir mais Ousmane Sonko candidat tam war na ko mën a investir bu ñu paree investir Diomaye bu ñu paree investir diw investir parce que foofu lañ toll. kon Ousmane Sonko benn jamono jekku nañ ko ci 2023 mais ñëwaat na te dama defoon sama benn chronique di leen suivre sama chronique ma ne à la fin c'est Sonko ki gañ bi mu koy wax du tey am na ñu doon wax nag ku day rêve mais des fois li naan final kenn du ko joué dañ koy gagné foofu la Ousmane Sonko toll ak ñoom joyatul mais day gagné final mën nga gis ku football ba dee ñu dugal ko bitu 90 minute mu jeex. foofu nag la Ousmane toll ak ñoom loolu nag bu amee Macky sàll dafa juum mooy bi muy wootee dialogue national le 31 mai 2023 ñëpp teew mu ne ku gedd sa yaaya ay Ousmane Sonko ne dew ma parce que nag mbir mi même boo ko mënee da nga koy tal jamono bi nga nee nan dem dialogue ci suba sa nga woo Ousmane Sonko pour mu jàkkaarloo Adji Sarr <laughs> mais y a problème te boobu yow mayoo ko jàmm léegi bu ñëwee ci dialogue lan lay waxtaane mais kuy rëbb jaan doo doo faale jiit nan ngay amee bis bu doy na mbiri Adji Sarr le premier juin ñu lay woo dialogue le 31. am na ñu naan na dem na dem man bokkoon naa ci ñi ko doon wax mais des fois tu te poses est-ce que toutes les conditions étaient réunies bi mu nee day dem ci procès bi mais taxaw na fii ci mook Pierre Édouard Faye Walfadjri boobu mu ngi Ziguinchor mu ne bu dee ni dañ ma tegal sécurité bi war mais dinaa dem sécurité bi war mooy dinaa dem parce que ci diggante bi gis nañ ñu gazé ko fi gis nañ ñu bari garde këram fu mu génnee ñu jàpp ay garde kooram di ko fitnaal ñu naan ñu ngi koy kar ci tunnel yeeg ñu ngi koy kar ci corniche beeg lu ne ñu dugg ji mais yooy yëpp bu amee mu war a jugee jigéen sor ñëw ci mbiri procès Adji Sarr mais nguur gi da ko war a gàddu sécurité am c'est pas du n'importe qui mais Madior Fall ci jamono yi dafa génn mu ne ñëpp a te Adji Sarr mi ñu doon tappale moom bu musaan ñëw dañ dañ koy amal kaaraange danga ko daan gàddu di ko assurer sécurité am léegi Adji Sarr mën a am kaaraange ci réew mi ba mën a dem procès mun a tranquille Ousmane Sonko mii yootu réew mi mën a doon président ëllëg ñun du la ko jox ñu ne ko léegi jëlal risque dem tribunal lu fa xew kon kan moo koy gàddu ñoom sécuriser wul ko mais nanguñu moo am sécurité garde corps bu mu am ñu jàpp mu ne daw ma dialogue daw ma procès naka ne ñàkk dem dialogue boobu ak ñàkk dem procès boobu ñoo koy sove ñi demoon dialogue xalifa ak Karim seen mbir dara leeragu ci dara leeragu ci dialogue kenn du wax dafa bon mais dialogue pour lan la woon ak la jur parce que dialogue bu dee ba ni Mame Mbaye Niang di di jiixi jaaxa ci Khalifa ak Karim est-ce que bokk nga xam ne dialogue bi kon kan moo ci gagné ak kan moo ci perte est-ce que Ousmane mi ñàkkoon a dem sax amul raison tey. man dama bokkoon ci ñi gëm ni dafa waroon yable wala yooyu mais avec le temps da ngay dem ba gëm ni naka de waa ji ma daf mel ne maamam moo koy dee parce que am na ñoo xam dañoo am flair mel ne dañuy yëg lu ñëwagul loolu day am kon tey jii ñu ngi toll ci candidature dina bokk wala du bokk waaye tey jii ndam li Ousmane Sonko am rek xaw mooy la la Laurent Gbagbo doon wax on gagne ou on maanaam gañe ci nii wala gañe ci neere parce que li namoon ci moom bu sotti woon heure bi kenn du ko dégg mais ba tey ji mi ngi fi quatre-vingt-quinze candidats yu ñuy tudd dossier ma nga fa léegi conseil constitutionnel la ñuy déglu ak kii dira le dernier mot waaw ah, ku ñoom lañuy déglu léegi nag Macky Sall waroon na am ndam lu rëy te gëm naa ni Macky Sall amoon na ndam mais da ko yàq xam ne gudd fan ñaar la da ciy tooñ di ci defaru Macky bis li mu yàq ci réew mi yëpp ak li xew ci réew mi yëpp Macky bis bi mu taxawee tooñ la woon date bi wax ni moom jeexal na te du utaat beneen mandat moom la président Macky Sall ah bi mu ko waxee wax ji neex na de bi mu ko waxee ñu bari bëgg nañ de. bi mu ko waxee ñu bari féexal nañ réew mi parce que pour la première fois au Sénégal un président sortant na utiwuma ñetteelu mandat te dina tëgg élection yi ci jàmm ki war a bokk-bokk te lépp lu yoon dogal dinaa ci ànd ah ñëpp tàccu de ñëpp tàccu nag nangul ko ni ah Macky def na fi lu kenn deful ndax Senghor sax jaar na fi waaye Senghor dafa taylu nguur gi dénkaane ko mais kii dafa ne dinaa organiser élection ñu war a bokk bokk mu tànn Amadou Ba soit bu baax la wala bu ban man je ne sais pas ñoom la mais sénégalais yi aussi ñoo koy valider ou pas mais si Macky Sall yàqee fin wu am mooy décision de justice yi ak defante bi ak tëkkonte bi réew mi day dem ci kaaw ku ko fa nar yóbbu fii kaaw amu fi. l'essentiel mooy nan bàyyi justice def liggéeyam ci li fi xewoon yépp ñu ngi ci war a teg ay daan ñu teg leen ko ñu deful dara ñu bàyyi leen ñu dem li bon mooy euh, euh, la règne de l'impunité ku ma am ndey ak ku ma amul ndey mais justice dafa war a am ci réew mais justice boobu bu jógaleen nañ jàpp Ousmane Sonko nga ne nañ ko jàpp justice boobu bu waree atte ay nit ci flagrant délit procureur wax ñu yóbbu leen instruction waaye justice boobu tamit dañ doon xaar ci Macky sàll bu nee Ousmane Sonko na nekk candidat ñu bàyyi ko mu nekk candidat administration bi bu ko waree dugal ci liste yi mu dugal ko ci bu ñu ko waree jox parrainage ñu dugal ko ci parce que Macky moo ko diggoon te digga bor la ñàkk ko def war la kon mu doon na rek un petit résumé bu ñu doon def ci atum 2023 bi mënuñu wax lépp nag mais wax nañu l'essentiel ñi ci faatu yëpp ñu leen di ñaanal mais aussi di leen bàyyi xel mais aussi tamit euh, di gërëm ñëpp di leen euh, sant di ñaan ñu dem ci election jàmm ak salaam ki gën ci réew mi suñu boroom fal ko ki gën ci réew mi te gënal ñu suñu borom fal ko ñu war a bokk ñëpp bokk ñu teg lépp ci yoon 2024 bi nag dàq fuuf 2023 bi parce que 2023 moom li fi xew kenn xamul mu doon waaw Sénégal bu kenn mës sa xam moo fi xew lépp a nërmeelu lépp a simeeku lépp a sàgganu kon di gërëm El Hadj Modou Diouf Hmm, le grand réalisateur Ablaye Top di ko nuyu le grand monteur di nuyu ñëpp waa solution di leen gërëm bu baax di leen sant di jégalu ñëpp aussi des fois bu wax ji ëppee wala ñu wax naka sudul noonu parce que ñi lay déglu des fois ñu lëpp xam-xam gën la xam li ngay wax mais ñun dañuy waxee rek sunu kéemtalaay xam-tam di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñëpp déwénat yi di wax solution gi ñu boole nag ñu gën a ànd ci jàmm suñu borom gën ñu defal ay xéwal ak sutura waaye tamit gën a yokk liggéey bi sponsor yi kër gi gën a yaatu lépp gën a gën a neex macha allah di ñaanal ñëpp Sa Ndiogou ah di ko ñaanal gudd fan ak wér comme moom moo féete ca kaw boo ko ñaanalee rek ñaanal nga ñëpp ku la boot di bëri da ngay ñaan mi daan kon solution yàlla na gën a am jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.